asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daari Hizbut Tarqiyyah am na ngontu mbégte di ngontu tawféex muy dikk gu bette gu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général di murit dikk fii ci daara ji tey jii bisub alxames dëppoo ñeenti fan ci weeru kor yi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñett ci ati gàddaay gi di juróomi fan ci weeru mai atum 2022 bi mu agsee nag jëwriñu daara ji moo ko teeru moom sëriñ Youssou Diop fii ci buntu bâtiment bi nga xam ne moom la ab dalam ci biir daara yi Hizbut Tarqiyyah ak moom ci néegu bopp ginnaaw bi mu agsee muy bette bette terewul jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah di sëriñ Youssou Diop am na lenn ci jëwriñ yi nga xamante ni woon na leen ngir ñu teew nuyoog sëriñ bi saafonteeg moom jottali ko seenug cant ak cant yu war a mën a yëg. du tay du sonn. lépp man nee na nee na sëñ Sidi bi may laa koy wax ne ko dama ko dama ko ne sëñ Sidi mi du tàyyi du sonn ci ci jëwriñ yi nga xam ne liggéey bi saa su ne mi ngi koy jàng suñu béykat mu ne nag lu yéeme la. waaw taxawal sëñ Sidi. ak lam doon lam doon ci sëriñ lam doon ci sëriñ mel na moo ko jëkk xam ñëpp jëkk ko tëral ñëpp nee na suñu maam ju baax de suñu bàkkee doon mel na nii la mu xam ci sëriñ bi dafa mel ni moo ko jëkk xam ñëpp jëkk ko tëral ñëpp jëkk jëkk ko tëral ñëpp jëkk ko tëral ñëpp mel na moo jëkk moo ko jëkk xam jëkk ko tëral moo ko jëkk xam moo jëkk tëral loolu rek lii seen seen seen seen seen seen seen seen seen ànd bu baax bi sëñ bi rek. moo moo moo tax mu boole leen moom. ñun jugandoo. lépp moom lépp moom lépp moom waaw lu ma tey ñaan ñaan na ko borom nangul na ko lu ma tey faggu faggu na ko borom jubal ci ak borom lii nag ci li mu faggu li mu faggu li mu faggu li mu faggu boppam la daal yéen ci faggu teew ngeen nii nag mooy firnde ji mooy firnde ji nangul nangul nañu seen seen firnde la ji wala nangul nañu si Abdou Salaam Dieng moom itam moom itam mu lay fay moom itam imaam la fii tey mu ngi taxaw njàngale bi jàmbaar la lool quoi. waaw lii tubarkalla lii lii moom moom mënu woon a ñàkk de. alhamdulilah ñàkk de lii daal dañu dañu ñëw dimbale café bi. ñàkk de ñàkk de. jërëjëf. si si si Mourtala Seye moom. moom jëwriñ moom moom ci keneen ci keneen liggéey والفتح بالرداء woowaale ngeen membre yëpp yëddu la foo xasida yi léegi nag dañuy dem teewlu ci xasida yi bàyyi ko këram la néegam la ku mu woowul say néew man mii de bu ma woowul duma fi kon nan xajal nañ ko xajal ak njabootu boppam gi waaw waaw kay noonu la ñu wéyee nag ba waxtu gee ci la sëriñ bi soo ko agsi jëm si ci jàkk ji daal di ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo doon jàng xasida wane itam mbégteem lool ci teewaay bi. Merci dafa am goo xam ne daan jàng fulku ba àggal ko ba dafa naan ndokk bi ci bokkee nee na waaye kàddu barab bi nag di ba di barab bu yees boo xamante ni sëriñ bi moo ko daloo tey ci fànn yi yëpp lépp ñu yeesalaat ko mu dolliku ci yeneen barab yi nga xamante ni këru boppam la ci këru sëriñ dubaay yi nga xamante ni nekk na fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ginnaaw nag dikk gi ak dal gi ak ni nga xamante ni ni lañ ko bëggee woon ci ak teew sëñ Youssou Diop di jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah jotee na ak cant mboolem ñi nga xamante ni ñooy membre yi ndax barab la boo xamante ni li dikk gi bette bette amul kenn koo xamante ni dikk nga fa te dañ faa sàkku sa teew ba ci kuréelu xasida bi loolee nag di li nga xam ne moom la ñu xamee daara Hizbut Tarqiyyah ci yar ak taalibe di firndeel itam la nga xam ne. moom la ñu Cheikh Salim Mbacke waxoon ni kuy ñëw sa kër doo tàggoo tey jii Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke firndeelaat na ko ci dikkam gi ci daara Hizbut Tarqiyyah ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu motale ko te ñu ànd ko ak moom. li ñu jullee ba àggal nag ci la ko mbooloo ñu lépp ànd ak mbégte mu yeesalaat. ay cantam jaar ko ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou Diop soxna naa am mépp ci loolu nag biñ ko ngee ba agsi jëwriñu daara ji leeral na dikk gi tawfiix ji nga xam ne moom lañ ci am ak cant gi nga xamante ni amee nañ ko ci Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké euh, ak asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi fii ak jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëñ mel ni tey daara ji ñëpp am nañu mbégte ngir mbettum mbégte ak tawfiix joo xam ne am nañ ko ci teewaay Cheikh mun Mountakha Mbacké fii ci barab bi waaw jërëjëf mbég mi moom du lu ñu mën a missaal waaye balaa may wax dara ginnaaw yàlla dafa dogal nu mu fekk nu fi te sëñ bi yëgaluñu ko daan ñuy bett na sëñ Saliou daan waxee ne kuy ñëw sa kër doo yëgli doo doo doo doo doo yëglu loolu mu defal ñu ko te ñun ñi mu fi fekk xam nañ ne ñoog membre ya nekk ca sori sa fii ba Amérique fii ba Brésil France walla Afrique du Sud wala jeneen beneen réew ñu nekk foofu ñoog ñoom ñoo ci bokk tolluwaay ndax ñu ñëpp am pas-pas di liggéeyal sëñ Tuubaa ci biir Hizbut Tarqiyyah liggéey boobu sëñ Tuubaa nangul ñu ko ci loo xam ne du caaginu ne nun noo yeyoo sëriñ bi nangul ñu ko waaye daf ñu ko dimbalee baat yi mu wax keroog ne euh, sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tawféex lañ amoon nee na ñun itam kon nañ xam ne tawféex lañ am tawféex jooju nag daf ñoo leeral mooy lan mooy liggéey sëñ Tuubaa bii ndax am na ñu daan wax sëñ euh, sëñ Saliou ne ko Mbàkke dañoo man de damaa bëgg liggéey sëñ Tuubaa mu ne da ñaan sëñ bi liggéey loolu ndax bu la liggéey di dina la jox ngànnaay Hizbut Tarqiyyah nag du ngóor ak kenn du njàmbaaru kenn kenn day lu sëñ tubaa faggu mu bokk ci liggéeyu yoon wi Youssou Diop doonu ci dara yoonam new ci ndimbalal sëñ Tuubaa moo ko fekk mu naroon dem ci sànkute nar dem ca sawara sëñ Tuubaa dimbali ko delloosi ko dugal ko ci mbooloo mi ba tax tey jii ak ëllëg bu ñu toogee ci biir ñu baax ñi duñu ñu seexlu duñ duñu duñu duñu duñu duñu delloo waaw kon nangul googu sëñ Tuubaa moo koy def sëñ Tuubaa mooy def comme baaxal ñi gën a baax dootuñ la xeeb ndax ndax ndax ndax ndax ndax suñu borom moo ko ko cëralee bés penc sax lay gën a leer kon sëñ Muntaxaa moom dañ ko ameel ak cant rek cant gi mooy daf ñoo euh, daf ñoo gàttandu daf ñoo taxawu daf ñoo dëgëral daf ñoo dimbali daf ñoo dooleel waaye nag ñun tamit eh, yaar yi nga xam ne as gor war na ko mën a waat mooy ki la teral defal la loo xam ne mënuloo ko sa bopp nga ne man ah, ngor laa am jom laa am kon duma des ginnaaw duma ma ñaaw kon ki la teral xam nga ne am na bis am na bëgg sëriñ bi moom ak bëggam mooy ñu dund sëriñ tubaa ñu jéem a xam sëriñ tubaa nee na nuñ ko gën a xam ah gën a xam yàlla nuñ ko gën a dund gën a mel ni yàlla bëgg kon liggéey baa ngi nii ndax sëñ Tuubaa moom benn tool la am daf fee daf fee romb lépp wan ginnaaw lépp jël toolu rasulullah saa salaf def ko muy toolam doon jëwriñ ji ku jëkk ku mujj xam nga ne sëñ Tuubaa mooy jëwriñ ji ndax nee na ba bis pénc yonent bi saa sallam dina yëkkati loxoom baha rasulullahi kullu lanbiya alayhimu abqa salaamay rabbiya bi xurbati hachara sinina bi xidam xaalisatin lisil bu joodi wal xidam kon la mu doon liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na bis penc nit ak ginneeg malaayka yonent yi ñëpp dañuy teew mu ne yéen yonent yi liggéeyal ngeen ma ndax moo tax ñu tudd nabiyul mursal waaye kii nga xam ne moo ñëw sama ginnaaw doon ma liggéeyal kan moo gis liggéey bu toll ni liggéeyam bii loolu nag bu ñu amee sëriñ bu mel noonu dañoo war a fexe ba xam ne sëriñ bee gën ci sëriñ si waaye nun noo war a gën ci dongo yi